par le doyen des juges la décision de le placer sous mandat de dépôt euh, c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit d'une enquête de flagrance de flagrant délit portant sur un téléphone faut le préciser le dossier le dossier dans le dossier c'est une enquête de flagrant délit soi-disant pour quelqu'un qui aurait volé un téléphone Et on a entendu la gendarme plaignante qui est venue dire c'est pas Ousmane Sonko qui a pris mon téléphone, mais c'est un de ses agents de sécurité. Ça, c'est un. Est-ce qu'il vous a blessé Non. Mais j'ai mal, j'ai mal à, à la, au poignet. Est-ce que vous aviez décliné votre identité pour qu'on sache que c'est un gendarme Non, je n'ai pas décliné mon identité. Donc voilà le dossier. Et lorsque les gendarmes ont interrogé, les policiers ont interrogé Ousmane Sonko, il n'a pas répondu sur ces questions-là. Maintenant, l'enquêteur va sur Internet, il va sur YouTube, il le dit dans son PV, il va sur YouTube, il télécharge toutes les déclarations qu'Ousmane Sonko a eu à faire depuis 2021. Et tout ça, ces vidéos-là qu'il a téléchargées de YouTube, c'est ça qui constitue les faits qu'il a mis dans le dossier. Et ils ont posé des questions à Ousmane Sonko sur ces événements-là qui datent de Naturellement, il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur absolument apporter aucun fait, encore moins aucune preuve de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et donc, il devait refuser, il devait rendre une ordonnance de refus, d'informer. Bon, il l'a pas fait. Il assume, c'est sa responsabilité devant l'histoire et devant le peuple sénégalais, que sa décision d'aujourd'hui va avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays. Voilà. D'accord. Et si d'un mandat de dépôt, euh, On verra, on avisera. On avisera. Non, je ne peux pas parler de Juan parce que Juan n'est pas là et je parle de l'actualité tout de suite là. Alors ci wolof li ñu mën a wax mooy dossier bi nga xam ne moom le juge d'instruction bi yore mooy enquête bi jógee enquête bi li ko waral enquête de flagrant délit la ñu wax kii enquête moo bind commissaire bi moo bind wax ni enquête de flagrant délit la portant sur l'histoire du téléphone bi ñu interrogé yee jigéenu gendarme bi nga xam ne moom na téléphone am ñu jël ko mu dem filmer ñu ne ko kan moo jël sa téléphone mu ne du Ousmane Sonko mais benn gardam moom moo ko jël xam nga loolu leer na ñu ne ko est-ce que dafa la gaañ parce qu'ils ont parlé de violence mu ne non non non il m'a pas blessé gaañu ma mais su ma poignet day metti rek ñetteel bi ñu ne ko est-ce que bi nga ñëwee décline nga sa identité wane ni que tu es gendarme mu ne non defu ko te jigéen ji dafa nekkoon en civil di filmer nit ñi dégg naa sax dafa takkoon bracelet Pastef pour passer certainement unanime alors donc voilà le dossier bi nga xam ne ci la ñu doon def enquête de flagrant délit maintenant kii enquête moom nee na dafa dem ci internet dem ci YouTube télécharger discours Ousmane Sonko yeeg événement yi mu bokk ak meeting yi mu bokkoon yëpp depuis 2021 loolu yëpp la dajale def ko ci ay clé USB def ko ci dossier loolu moo tax ci loolu la procureur sukkandiku pour wax li mu wax yëpp bon li mu wax yëpp dem jëli ay dossiers yoo xam dossiers yi existé na déjà jàpp nañ ci ay nit yépp mu yàkkal ko Ousmane Sonko ni moom Ousmane Sonko la Ousmane Sonko nag tontuwul ci benn question donc ñun dañu demandé woon juge bi ni ko comme procureur li mu lay wax yëpp amul benn fait bu mu la indil ni benn preuve defal une ordonnance de refus d'informer maanaam nga bañ ni yow doo informer moom nag deful loolu mais daf koy assumer devant l'histoire histoire du Sénégal li procureur def tey ci la bokk maanaam koo xam ni kii candidat la pour nekk président de la république te ñëpp di ñaan yàlla mu nekk ko en tout cas ñi ànd ak moom di ñaan yàlla mu nekk ko ëllëg kooku la ñu bëgg a placer tey sous mandat de dépôt pour mu mën a toog ci seen loxo bañ a bouger donc foofu la ñu toll actuellement voilà merci beaucoup merci à